téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati nag mbégte di jàkkaarloo ak yéen xam naa ne namoon ngeen ñu waaye itam ñun itam ñoo leen rawoon nii lay demee saa su nekk nag lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji nañ toog fii daal di ko faram-fàccee waxtaanee ko waaye nag li taxoon ñu raa xam ngeen weekend bi dafa xawoon a gudd lundi bi Babacar. bien sûr noppale nga ci. amoon fête boole ci. Ah. waaw dama lay nuyu di la fay. Mm-hmm. di nuyu ñuy suivre ci Equivox TV. di jégalu euh, téléspectateurs yi xam na rek même bu ñu gisulee tamit. tamit dinañ ñoom mhm. bu ñu gisul Zida bi ñu ngi ci beneen mission wu làmb parce tout temps ci mission boobu la dox mhm. parce loolu ñoo ko digaale ak ñoom te dañ koy xaar ci ñun ah, weekend bi nag moom nekkuloon weekendu noppalu mhm. waaw ndax defe naa ñu ngi woon entre Kaolack ba Gambia bi Gambia dëgg la waaw kon defe naa ne moom ah. nekkuloon noppalu mais ah, bon mardi bi ñu ñëw xaw a noppaleku waa waaw mardi bi waaw ah, démb moom wax dëgg yàlla dama waaw dama waaw dafa dafa waaw si baa guddee quoi loolu moo tax gisuñu démb <laughs> ñu jéegu te leen di moom fet la woon yaakaar naa ne mënta ñàkk mhm. voilà bu baax ñu dem seetaan li nga xam ne moo di revue bi daal di del si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 26 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fesal bokk na ci koo xam ne nii maanaam mbër mu mag la di VIP di Eumeu Sène Eumeu nag mu ngay wax ci génnam yi nga xam ne war na koo génn maanaam génnam yii di ñëw ginnaaw bi mu essuyé ci diggante ka nga xam ne nii moom moo doon Lac de Guiers ëmma daal nee na amateurs yi nan ka xaar ak ay supporters am maanaam bis bu génnaatee maanaam dinañ bis ëmma seen boo xam ne bu paree lay doon boo xam ne impact su ko reegee moom la mu daan def lañ ko xamee woon lay def maanaam Eumeu Sène daal tey loolu la xëy tey dige ko keneen koo xam ne nii moom génnagul waaye mu ngi ca yoonu génn di tafaatin yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ak aw photo kay wax nag du kenn ku dul fàllu fay ma nga xam ne moom moo jiite bawol mbooloo ga nga xam ne fa la tafaatin di jongantee nee na seen digganteek booy ñang moom moom jàpp na ne daal risque moom ku ko fay wax dangaa xamul waaye tafaatin risqué wul dara ci digganteem ak booy ñang nee na làmb la rek joo xam ne nii ñoom jàpp na ne ñu ngi cay dem ak xel mu dal te jàpp na ne tamit bu buñ cay génn ndam rek lañ ca yaakaar waaye risque moom daa jàpp ne loolu moom amu ci tafa fàllu fay moom moo xëy tey wax loolu yemu ca ñëw na tamit ci defet boo xam ne mbërëm mi di tafaatin amoon na ko fi at yi ci ginnaaw diggante ak Balla Gaye 2 ne na defet boobu moom nan ko digéré jàpp na ne lu doyoon waar la loo xam ne daal metti woon na ba yegg ci lool lool moom fàllu daal tey moom la sunu lamb dalal mu xëy ngar daaju yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu lamb ñëw na ci diggante omes tamit ak tafaatin ci bàyyi ga nga xam ne nii omes bàyyi woon na ko ak ya ca ajoog mbir yoo xam ne daal tey moom daal moom fàllu fay ka nga xam ne nii moo di Abdoulaye démbale moom la xëy tey dalal mu waxtaan fa luy yaatoo yaatoo yaatu ñeneen ñoo xam ne ni moom yëglikaay bi ñëw na ci moom wala keneen koo xam ne bi ñëw na ci moom muy Abdou Diouf ba nga xam ne nii ku ne xam na ne ñaar fukki at ak benn ci ginnaaw bëri na fi ak Gris Bordeaux yëglikaay bi nag nee soo bëggee dégg dëgg jël na rakki Gris Bordeaux nag ginnaaw ñaar fukki at ak benn yoo xam ne jongante woon na ak mag ja tey nag rakk ja lay jonganteel di Gris 2 combat ba likaay bi nee nañu le 4 juillet la nar a am moom yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey wax nu ko am na loo xam ne ne boog wala boog li nar am te ko a

nationale ak waa Vox Arena yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne nii moom am na àllarba muy àllarbaay tey jii muy idaali ñing ak première journée yëglikaay bi na na dab daan tey mook mbaytin senior ko yebu xaar leen fa nga xam ne moo di ci arène nationale ndax nag idaali ñing tey moo fa ñëra ñëw tey ci àllarba ji mel ni ki du ca yem de ndax ku ne xam ne tournoi am ba nga xam ne ni moom la tëgg di ay xale idaali ñing tey la ko fas yéene tamit fésal maanaam mbër ya bëri seen bëri yu njëkk yankaw ku ne xam na ne mook caatu daawuda fall ñoo fa war a laale waaye ka nga xam ne ni moom moo di albarka kayre ak kaw gurne tamit loolu lépp tey lay am ci arène nationale leneen loo xam ne ci arène nationale la fas yéene amee ka ko fa yéene amal di mbay yikini mbay yikini ab borom di ab promoteur maanaam moom nag am na ab date léegi diggante ndongul ak Cheikh Tidiane Niang yëglikaay bi ne nañ daal mbay yikini yéegi nag leeral na nañ mbir yi ba mu leeral maanaam la 20 juin daal la fas yéene tëgg jooju lamb yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko wan ñu ndongolo ak Cheikh Tidiane Diagne ci xëtam mu njëkk moom sunu làmb mu mel ni ki daal fi mu nekk ni soo bëggee dégg-dégg moom làmb ja sàjj na ba yegg ci lool lool lool leneen loo xam ne ni moom yëglikaay bi ñëw na ci mu jëm ci wàllum drapeau chef de l'état bi ak ñoo xam ne ni ñu ngay dugal seen ay loxo ci seen i di leen jàppale maires bi nga xam ne ni daal moo nekk ca njaafat moom daal bu bëggee dégg-dégg daal madame Tallane kay wax maanaam moom daal recevoir na wala boog dalal na ña nga xam ne ni ñoom ñoo yor équipe ba maanaam jàppale na leen ci yoo xam ne lool lool maanaam daal jàppale na leen mu mel ni ki daal moom kon moom daal commencé na di jàppale waa Kaolack la mu bëgg nag mooy drapeau ba comme ci seen dëkk lay amee mu bañ a génn maanaam région de Kaolack dal di ko jël dugal ko ci seen biirum dëkk mu yem fa yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu buñ fa jógee danuy toxu dem fa nga xam ne mu di ca record record moom lan fa xëy gisati mooy la nga xam ne nii moom la Aziz Ndiaye def fan yi nu génn maanaam ajjuma ji passé maanaam fexe ba ak juboo wala waxtaan toog déggoo doon benn am ci diggante ka nga xam ne moo di Gaston Mbengue mi ngeen xam ak Pape Thialis Faye yëglikaay bi ñëwaat na ci mbir yu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom record ba tey dinu xamal ne daal maanaam boo bëggee dégg dëgg ca Burkina Faso équipe Sénégal ba fa demoon ci wàllum bëre doon fa jongante daal maanaam lépp lu fay médaille d'or bàyyi luñ ko kuñ fa dajeeloon maanaam médaille d'or yépp lañu jël booy fay ku ne xam ne bokkoon na ca ca cent vingt kilos ya kilos tamit ku ne xam ne ne Mamadou Faye ordinateur la woon la nga xam ne nii moom moo di ca quatre vingt six fa nekkoon moom moo di Abou Assef waaye ñoom ñii daal ba ñuy ñib si dara luñ fa bàyyi waa Burkina amul médaille d'or yépp la ñu jël andil ko waa réew mi nga xam ne ni moom moo di waa Sénégal ñeneen ñoo xam ne nii moom ñu ngi ci préparation combat record wax nu ko mel ni ki nag diggante combat la guy gi ak rëg-rëg ñoom ñaar daal ginnaaw ba ñu defee jàkkaarloo ba ba pare daal guy gi moom nee na coow jël avion wutali réewum États-Unis lam fas yéene nag maanaam combat mag rëg-rëg daal la fas yéene préparé yi mel ni kon daal foofa tamit yëngu na ba yegg ci lool lool leneen loo xam ne nii moom dañ cay ñëw mel ni ki yooyu vidéo mu ku yeboo xaar ko fa nga xam ne moo doon ci Equivox maanaam la xewoon ca Gambia bokk na ci jàkkaarloo ba nga xam ne nii moom moo amoon ci diggante ga nga xam ne moom mooy Leket Baara ak France waaye la nga xam ne nii moo ca ci ay combat ak promoteurs yi Gambia maanaam ku ci nekk wax nga sa gis-gis waaye tamit mu mel ni ki Gambien yi daal soo bëggee dégg-dégg seen diggante ak kee daal fi mu nekk nii neex na ba yegg ci lool ndax nag daa mel ni la ñu bëgg ci làmb bokk na ci ña nga xam ne ni ñi leen koy jox la di leen ko bëggale waaye duñ ca yem ca gàmbi googa ndax itam ku yebu xaar na ma leen ko wax ci Equivox TV di ngeen fa gis Abou Niassé mu wax digganteem ak Pape Ndoye waaye di ngeen fa gis tamit commissaire ma ngeen xam di ànd ak Balla Gaye 2 ba bëccëg la mu wax mu mel ni ki daal kon Gambie boo bëggee dégg dëgg daal maanaam yëngu woon na lool ci weekend bi lépp nag Equivox TV ngeen koy gise muy lu leer nañ waaye duñ fa yem de lii nag moom aw tiis la maanaam inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon la ñuy wax ka jiite lamb ji di Bira Sène maanaam ñu fal ko bu yàggul moom nag la way juram génn àdduna ñu di ko doon maanaam daal yaayam ji nga xam ne nii moom mu ngi toll woon ci quatre-vingt-seize ans maanaam juróom-benn fukki at wala boog juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn moo wàccub liggéey ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana way juru biraa seen wow mel ni kon daal addinaa ngi noonu maanaam demal la maa ngi ñëw ñu ko doon wax maam aadama coor kon maam aadama coor yàlla na ko yàlla xare aljana barke yonente bi sallallahu wa sallam gomis macha allah suñu maam Adama Coor yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko arjana firdawsi Babacar am na solo. waaw mhm. euh, bu ñu jógee foofu rek ñu daal di euh, ubbee nag li nga xam ne moo di journal suñu làmb tey ci xëtam bu njëkk kañ fa gis rek moo di Eumeu seen muy wax ci li nga xam ne moo di prochaine sortie am lam xam ne daal moo di euh, bu paree daal dina génn te su booba amateur yi dañ xam ne pare na. ah loolu de boo ko déggee man nga di jàngat si diggante mag lak ça veut dire kon li ñi doon wax ne xëy na parewul daf may da koy dëggal foofu parce que tamit ñu bëri ne nañ Eumeu Sène ni mu bëree contre lak xamewuñ ko ko dafa saf bëri bi maanaam dafa bëri contre nature maanaam nekkul woon bu pare parce que boo xoolee wax dëgg yàlla ah na mu bëree moom du luñ ko xamoon ndax Eumeu xamoon nañ ko ci sa këtal adversaire xeex bëree ba lu mu ci amee jël mais la preuve keroog gisuñu loolu alors nag wax dëgg yàlla yaakaar naa ne suy bëree si waat moom du ko bëgg mhm. du bëgg bëree noonu kon defe naa ne bu nee bu ñëwaatee dinañ xam ne pare nañ ah ñu ngi ko ñaanal yàlla mu ñëwaat si jàmm rek am adversaire mhm. ñu xool ndax li mu wax nii mhm. dana méngoog la am te itam yaakaar naa ne ah waras na koo mën a xaar ci loolu waaw am na solo ki nga xam ne moo di Fallou fay nekk président Bawol Mbooloo mhm. daal di ñëw ci diggante ki nga xam ne moo di Boy Niang ak Tapha lam xam ne nag moo di euh, Boy Niang du risque ci ki nga xam ne moo di tafaatin ba pare daal di waxaat ne on a très mal géré sa défaite contre Balla Gaye 2 maanaam défaite bi nga xam ne Tapha Tine amoon na ko ci ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 waaw risque la du risque àddina moom l'essentiel que mhm. boo déggee nit ñi ne risque la mhm. ça veut dire que parce que Boy Niang xale la bu ne si ascendance maanaam buy yéeg boo xam ne am na ambition am na lu mu bëgg te am na encadrement. Mhm. Tapha Tine am na fu mu toll ci làmba yaa ngi dégg. Mhm. parce que euh, adversaire bu ma ne boo ko amee muy xale. Mhm. bëgg am lu mu bëgg am fu mu teg ay bëtam. ça veut dire ñu la risque côté boobu mën na ko faa déggee waaye nag àddina dund bi yëpp risque la. waaye bon dafa am adversaire boo xam ne dafa amoon même moromam même taille même profil parce que ci même quartier bi muy Pikine. te bés boobu da ca génn ak defet muy diggante ak Ama Baldé. bi mu ca jógee bëriwaat na fi ay combat amaat ci ay ndam ba mujj ci kii ni senior mu tafaatin mhm. tey bu ñëwaatee nag bu war a bëri ak booy Niang bu ñu ne laa risque la c'est-à-dire que xëy ni ñu ngi wax naan ah parce que tey tafaatin su ko booy Niang daanee mhm. day metti trop trop trop ci moom loolu moom ku kuy wax rek te yàlla tax da nga xam ne bu amee defet foofu lu mu dundoon ci contre Ama ci métti dina ko ci combat bi ndax ñu bëri jàpp nañ ne tey Tapha fi mu nekk ci làmb am nañu xam dañ jàpp ne war na mën a xëccoo ji roi des mm-hmm. waaye itam bu amee ndam ci contre Boy Niang am na ñoo xam ne mën nañ ne du du leen bett am na ñuy waxee noonu parce que am na ñu jàpp ne Tapha Tine doole Boy Niang mm-hmm. kon ça veut dire que foofu la risque wax risque foofu la ne. ñoom nañu dégg ni maanaam loolu dafa am xam nga wax neex na loolu Youssou Ndour noonu waaye déggoo ko raw. waaw kon nañ ci bàyyi xel et puis bu dangereux la jëmaa moom Tapha xaw ma risque la xaw ma du risque mais combat bu dangereux lay bëri moog Boy Niang. Mhm. adversaire bu dangereux tamit la am. Mhm. waaw. am na solo ci mhm. euh, at seen combat contre Balla tamit mal digéré comme ah waa loolu moom. waaw defet moom waaw defet moom kenn kenn bëggu ko. waaw mi <laughs> bi ñu jógee foofu nag ñaar fukki at ak benn. ab mhm. euh, ba du Diouf amee victoire ci kaw Gris Bordeaux. Mhm. fi mu nekk nii nag am war a jàkkaar loolu moo di rakk Gris 2 le 4 juillet incha allah. rakku Gris Bordeaux muy Gris 2. waaw waaw le 4 juillet jéey seen moo tëgg ba bu combat. muy combat comme ça veut dire moo lay wan ne. ah euh, gis nga at yi. parce que Abdou Diouf ku ne xam ne ne daan na Gris Bordeaux boobaa ak léegi 21 ans la comme ni ko sunu lamb waxee. après ñëw war a tasewaat ak. ak kii Gris Bordeaux ah. Ah, kon mu les années passent vite. parce que bon boo boo athlète moom fekkee yaa ngi entraîné di liggéey ah man ngay parce que tamit lii mooy lamba. Ah. Uh-huh.

ñii ñëpp franc moo ñoo leen daan de. non Tyson 2. Tyson 2 moo waaw ok wax nga dëgg. Ah, Tyson 2 moo daan Tyson 2 moo ok daan assurance daan góor a soog a soog. nekk ni nag franc moo ci des. voilà ndax dina passé nag quatrième quatrième vitesse am dana ko dugal wala dana ko jàll. ah loolu moo lay won ne kon franc ñi wax ne. Euh, adversaire la am dëgg la ñu wax. Mm-hmm. adversaire de taille la am ndax Garga 2 mii mu ñuy wax te mu war a bëri ci bis bi ak Mama Lamine ku ne xam ne adversaire de taille la le 9 juin. Mm-hmm. ñu ne leen waaye assurance ku ne xam na ko ci simple ak hymne national maanaam li mu def ci simple nekk mburum dóor. mu mm-hmm. mën a bëree dóor tamit góor a soog waxaale wuñ ko xale la. bu nekk ci yoonam di dem te ñun ñëpp Tyson 2 bi bi ñu jaaree ci moom daf leen a wan boppam. kon Franc am na adversaire de taille ndax dina ko jàll wala du ko jàll nag moom Tyson 2 loolu dañuy bàyyi ba le 9 rek dañ lan ko fekkee te tal ko du dem mm, soobee ne combat bi du yomb non yomb moom ku ko ci xaar mooy bokk dama naan genre combat yi di eh, a koy dégg déggoo li ma la wax <laughs> da da li ma lay wax mooy mm. maanaam Tyson 2 mii mm. da di mbër Franc ne ko gaay waaw Franc itam ku ne xam na ne fi mu nekk nii ah mu ngi ci yoon ah, kon ça veut dire que vox arena rek ah la Youssou waxoon rek juumuñu de. ñoo ngi noonu kontaan bi daal macha allah macha allah yàlla nañ ak ndam maa ngi ñaan. Mhm. yàlla mi nga xam moom mooy dogal Vox Arena li ñu def nii. Mhm. te tëgg ko mercredi. ku ne xam na ne mercredi bés bu nga xam ne sur ouvrable la bés bu ñuy liggéey la. Mhm. waaye nag bon ñu ngi ñeen di ñaanal yàlla ñu réussir ko parce que tamit ay gan lañ ci làmb. te gan bu ñëwee ah dañuy ñaan dalam baax. dëkkuwaayam baax ngir bu demee mën a dellu si. dañuy ñaan yàlla buñ ci jógee mën a tëggaat yeneen koo waaw macha allah euh, première journée yi daal yi mercredi bii nii ki nga xam ne moo di dab daan euh, war ci tase ak Mbaye Tine Junior ah. waaw loolu tey lay doon mu soobee suñ borom mm-hmm. idaal yi ñu ngi tamit di jeune promoteur boo xam ne ku ne gis na présentation yi ñu def fii ci Vox Arena ak Equivox ci mm-hmm. combat yi mu tëgg tey nag muy génn bu njëkk bi ci at mi mhm. maanaam pour idaali ñi ngi ak ñi ko ñaanal tamit réussir parce que moom tamit ku ne xam ne ne tey àllarba la mhm. euh, mais ci la tëgg ay làmbam ah, loolu moo lay wan ne fi mu nekk nii saison bi dafa saturé mhm. mais neex ndax dab daan bay tin ah, loolu làmba la ñu ne dit na mu indi tournoi boo xam ne nii ah, ki nga xam ne nii moom moo di fils de fils de fils de Thiatou Daouda Fall nga ca war a bëreeg Yankaaw euh, Kaaw Gourdin war a bëreeg Albarka Kayre ak yeneen combat teq jël daan ak ka nga xam ne nii moom mooy rakk Marley loolu lépp di lu war a am tey kon yi daal yi daal ñu ko ñaanal tey mu réussir àllarba am tey àllarbaay tayam ji am na solo waaw ah, di wax ne euh, yooyu yëpp nañ ci nañ ko xaar ci ci ci Equivox rek. ak ay reportage yu am solo ah, euh, ki nga xam ne moo di Ndongo Lo ak Cheikh Tidiane Niang euh, Mbaye Yékini moo ko daal di officialiser pour le 20 juin waaw ñu koy ñaanal mu réussir ko Mbaye Yékini moom itamit mm-hmm. jeune la boo xam ne ñëw na si làmb. Mm-hmm. nekkoon koo xam ne da dund làmb parce que làmb jaar ci fi nga war a jaar ba ñëw ci am solo ndax ku ne xam ne ne Mbaye Yékini buñ ko nee Mbaye Yékini ça veut dire que ku bëggoon Yaxya Jóob Yékini la. Mm-hmm. yàlla def ñu niroo tamit ci bind nit ñi doon ko ko bëggoon ko di dund ak di dund loolu mhm. ba ñu koy wooyee mbay Yékini moo ci kii de ah. non non non Mbaye mooy promoteur bi ah, tëgg Mbaye Yékini ça veut que moom moom moo tëgg ndongol ak ki nga xam ne nii moom moo di mhm. euh, Cheikh Tidiane Niang mhm. pour le 20 juin ñu koy ñaanal bés boobu yegg seeg jàmm mu génn ci ak jàmm parce tamit xale la boo am jom bu respecté doomu aadama di suma waay mbay maa ngi koy bëgg di ko ziar. Mhm. waaw am na solo yooyu la xibaar suñu làmb ñoo ko fasaloon ñu daal di jàll nag ci record. Mhm. Euh, kañ fa gis nag moo di Aziz Ndiaye def euh, loo xam ne vraiment dafa rafet. Mhm. dox ci diggante ki nga xam ne moo di Gaston Gaston Mbengue ak Pape Thialis Faye vraiment def ci lu rafet. waaw loolu day dama naan ci am réew. boo ci nekkee defe naa ne lii la ñuy xaar si yow surtout nga nekk koo xam ne ñëpp dañ lay bàyyi xel. te Aziz tey waxuma sax ay waxu. produit yi wala yeneen mais Aziz mhm. ci boppam mhm. ah bëri na ñu koy bàyyi xel bari na ñu muy jëflanteel ci ay kilifa mhm. te xëy na xale la te loolu bañ ko xamee si moom ak tey yàgg na kon defe naa ne tamit daa mel ni am na aw sas sas bi mu am nag mooy fexe ba lépp di rafet fexe ba jàppale ñëpp donte daanu daju si waaye nga jéem defe naa ne bi mu def fii ku ku bëgg rafet da nga ko rafetlu mm-hmm. mooy Pape Thialis Faye ku ne xam ne ne mm-hmm. mm-hmm. ma man keroog bi mbir am defe naa fa la ma fekk yàlla fa dogal ma tombe ci ça veut dire que rek li mu def nii yàlla na ko ko yàlla fay ndax ay diggante moom saa bu jagadee nit a koy jóg jagal ko waaye bu ku ne toogee jàpp sa ñaamur xuloo ba day yaatu te xuloo bu bëri amul benn njariñ jàmm gënu ay mhm. kon Aziz daal jaaraama félicitation ci geste bu nice boobu mu def ay da moom lu delloo réew ginnaaw la peine daal dara dàq ko jàmm gën lépp man dama gën lépp am na solo mhm. euh, ñi nga xam ne nag euh, fédération burkinabé de lutte bi dañoo invité woon ñi nga xam ne ñoo di les lions ñu dem macha allah médaille yañ fa tegoon yëpp ñu buub ci wàllum or <laughs> muy booy fay Euh, ordinateur ak abu mm-hmm. asef mm-hmm. ñett yooyu ñu la woon ci catégorie yi ñu doon ci kilo mm-hmm. cent vingt kilos cent kilo quatre vingt six kilos loolu nag moo lay wan ne làmb moom ci Sénégal wala ci Afrique ah Sénégal yi saa demee wane ci seen bopp li ñu ci wax rek mooy état du Sénégal rawatina en commençant par le ministre des sports monsieur Matar Ba nañu gën a jox gëdd ñi nga xam ne ñoom ñooy jonganteeli Sénégal ci bitim réew ci wàllum làmb parce que saa bu ñu demee ak lu xat-xat yi metti ak nu dundu ga tartar dinañ fexe ba indil réew mi ay médaille d'or mhm. te itam loolu soxla nañ ko mhm. nañ leen gën a jox rek seen gëdd parce que nit ki ami cër yi mënta tolloo mais ku ne cër ba mu moom da fexe nga jox ko ko rek soo ko defee rek mu mhm. a doon moo xam lutte euh, olympique euh, a ak CEDEAO bi yëpp yëpp na état bi gën a bàyyi xel équipe yooyu ak ñi nga xam ne ñoo koy encadré am na solo ñu daal di ko tëjee rek euh, desewu euh, ki nga xam ne moo di waajur bu jigéenu Bira Sène mhm. à de ans macha allah yal na ko yàlla xare aljana barke nii la rek mhm. waaw loolu la daal yal na ko yàlla jégal taxare ko aljana moom sunu maam jooju mhm. di leen fàttali rek ne juda bi à chaque fois dinañ ci ànd ak euh, ki nga xam ne moo di dëwlin. Mhm. ah dëwlin bi kañ ah gi ngay laajte. j'adore ah waaw yow foo nekk j'adore kay or bi adduna a ko xam fi mu nekk nii. l'international laa ko tuddee j'adore l'international. ah, ah j'adore l'international. en tout cas daal sell na. te it sell noonu la baaxee. te muy dëkk. noonu la baax ci tamit ci togg. waaw pare noonu noonu noonu la lay poussé ngay gën a noppi nga xam ne moo di te nii. Ah. waaw du mën a ñàkk ah, parce que moom la may toggal. <laughs> ñii di nobante Awa Sow. waaw waaw gomis yow koy nobanteel. yow tamit tamit fexeel am koy mën di toggal nag. tàggatool da ciy baax da ngay yàq waxtaan. ah déet célibataire gu metti gi baaxu ngay fexe am ku la takk nga koy toggal Zador. <laughs> wala yéen élément Zador yooyu ku ci bëgg soxna nga ñëw jël ko ndax mu la ciy toggal. <laughs> di kontaan si ñëpp. di ñaanal ñëpp di jàmm di balu ñëpp ak den wax ni tamit demoon nañ ci weekend bi Gambia mm-hmm. li fa am yëpp insha allah rabbi bari na ay mm-hmm. vidéo yu ñu leen fa jëlal di ngeen ko gis ci biir Equivox TV mm-hmm. di nuyu Gambien yi waaye tamit di nuyu promoteur bi ñu fa yóbbu woon muy jamaïcain parce que moom itamit daa nekk xale boo xam ne jeune la ay atam bariwul mais mu ngi góorgóorlu di def di taqale di ko ñaanal yàlla daal yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir moo tax nag ànd bi ñuy ànd ak moom du àndu ay xaalis wala naa mais dañuy ànd ak moom mm-hmm. parce que am jamaykee ba nuy ànd booba dara du dara mm-hmm. ba yàlla dogal mu deme ni tey mm-hmm. kon defe naa dafay baax fu mu ne rek ñu di ko fekk di ko pousser di nuyu peuple gambien bi yëpp yëpp yëpp fépp fu doomu gambia nekk rek wax leen dama leen dama leen bugga waa gambia kenn du ñoom rawatina ñoom lig Nicolay am na lig Nicolay foofu am na fa duubalees moo get bu gambi duubalees maa ngi koy bége di nuyu gaay ah ñoom as coy Serekunda fépp fu ci soppe na rek maa ngi lay béggee waaye tamit di nuyu Idrissa Ndiaye gam bi neexoon na ndax da nga xëy xëyam ay anglais naan ma am yaa ngi fii la waaw waaw yaa ngi understand <laughs> waa ji yaa ngi understand <laughs> kon neex na am na solo mbokk téléspectateurs yi fii la ñuy daal di yem yéen tey ci journal de ren bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf